asalaamaaleykum euh, internet UGFM tey ñoo ngi ak euh, Pape Thiopet fii ci invité du jour Pape na nga def. ah ñu ngi sant bu baax a baax. tey gis nañ la yaa ngi def ay prestations yu bëri lan nga préparé waa Sénégal. lu ma préparé ah waaw Pape Thiopet de moom ku ko xam-xam ne moom saa su ne lu yënga réew mi rek lay pare ci laay xëy ci laay gont lu may nit ñi jàmm fi ñu toog lu may maanaam ña ca hôpital yi jàmm. man daal luy bëggal doomu aadama yi ci lay dox chaque jour luy mayee jàmm man ci loolu lay dox. album fu mu toll. waaw maanaam ñor na xom yàq rek a ci des waaw. lan mooy tur album bi. ah en tout cas parce que morceau yi ci war a mën a doon faar dafa bëri. yoo xam ne boo ci jiital war na mën a doon album mais li bay li balancé nit ñi daal mooy benn morceau boo xam ne mooy sa bopp boobu laay may gars yi. pour ñu ñu xaar ko boobu daal laa ci tibb maye mais pour wax turu album bi nu mu tudd moom du ma ko joxe ko mais sa bopp. waaw. Euh, album bi ñaata li wax li ñu yor dafa bëri dañuy tibb ah, rek. dañ waaw waaw non togg nañ ba pare li li des kay mooy dañuy dañ ndax ndax fi mu toll nii gars bu ñu leen joxee bu ñu leen joxee huit morceaux ndax du lekk ba fër wala du leen du jox quatre wala jox leen trois fan la fan la seen kii seen xiifaay toll. ci loolu la ñuy nekk fi mu toll dañu xool seen xiibaar bu lekkee ne bu fekkee ne dañu fekk ne gars yi xiif lool mën na def ñetti ndab ndab lu nekk ñu def ci juróom-ñaari morso waaw bu fekkee ne nag wax dëgg yàlla dañoo xaw a dañoo a deseeru rek ñun luñ sox rek bu fekkee ne boisson lañ sox ñu xool morso yi toll ak boisson bu fekkee ne xiif ñu jox leen ñu lekk ba suur waaw morso yaa ngi ne gaañ morso yaa ngi ne gaañ Euh, léegi euh, en fait euh, amoon na benn histoire bu ndaw bu fi awoon par rapport ak ñu ne da nga faral Eumeu Sène loolu lan nga am loo ci wax. non xam nga Sénégal loolu laa bëgg ñu bako man dépassé naa ay faralanteeg affaire yooyu man Eumeu seen ak Modou Lo la leen fa yóbbu moo ma fa yóbbu bu ma neexoon wooy ba mu neex ma te du ma wooy duma woy du ma wooy parce que dañ leen fay pour ñu ñëw bëggal askan bi man dañ ma fay pour ma ñew bégal askan bi dañ may fay ñu ma da ngay ñew woy Omar Sen waxu ñu da ngay ñew woy Modlo buma bu dama fay ñew ne macaroni paya woy bàjjan wali mata njaay au secours bu ko raccati jugé fa wala cop may moni té duma woy kenn waye ci sama bir mbax ak yéene ñepp jamm té xamné ne défar na leen ñomit tour tur siw ñu ci ñoo ñu kenn siw ci kon gisuma lan mo fi jar daw bay daam waaye ci sama biir yéene leen ñoom ñëpp ku ci nekk jàmm ci laa wax bi may bëggee bi may dugg ci morceau bi sax li ma woy Modou sax woyu ma ko Eumeu seen woy Modou Lo bu baax a baax a baax gëstu gis Eumeu seen ci bi may wàññeeku noonu gis naa ni boobu vraiment ki doon def émission bi xaw na yàkkamte te tamit duñ la may lépp nga jël lépp ci biir wax ji nu ma yàkkamtee wàcc kaw seen bi ak loolu ndekete man gërëm naa Eumeu Sène ba pare fàtte ñaanal na Eumeu Sène fàtte ñaanal Modou loolu day dal ku ne ndax da ngay gis sax nit toog di jiita jiita ay nit war a def ñeent ñeenti rakka def ñetti rakka moo war a suñu borom wàcce xabla salaam ak ba'da salaam. ndax yàlla xam ne ne maanaam nit dafay juum. Mm-hmm. mais nit ñi parfois am na ñoo xam ne boo juumee duñ la ko pardonné yàlla rek moo dul juum koo fi gis laa lay wax nii da day juum par la force. man faralu ma Umar Sène faralu ma Modou Lo xam nga ku ma faral. Hmm? Mm-hmm. dëgg ku daan jël na ndaan. la ma doon def nag la ma doon def sargal leen ñoom ñëpp. amoo mbër man man nag wax dëgg yàlla man damay artiste yëmale ñëpp kenn laa xam ne bu daan bëri dina ma jaral lu ne. ah mooy Tyson te ba léegi laa lay wax nii fi mu tool ni barke Serigne Saliou Mbacke Tyson jàppee ma ko ay làmb ay bëri dama ko jàpp ngir jikkoom bu doon daal miir jël di xoolal jaru sax may seetaan ko ba lu mu indi baax na. parce que jàpp ma ko loolu. ban relation ngeen bu baax bu rafet Tyson ba may may xaalis man boobu man tudduma Pape Ndiaye Coppet boobu kenn xaw ma mu xool ma nii ak sama talent reconnaitre ko de may ma xaalis yàlla àtte ma dëkk ak moom maris ndax daje bi daje bi wóorul balaa ngaa xam sa waay da dem ba këram Tyson ma dekk ak mom ci benn koñ gis ay comportement comportement mu neex ma ma xamni ki nit deug ngi ni ma daan ak mom ci ay bagage yu bëri yo xamni bu ñewé ni mi comporto da ngay xamni nit deug ngi ni ma japp ko ci lool kon koku man affaire bu lamb ak ay yooyu yëpp yàlla def mo def manam ma supporte ko ngir jikkoom buñ ko doon daan mil jël bëgg na ko loolu deug la kon euh, sa relation ak yeneen artiste yi. particulièrement ma ma ma leeral foofu

rendre compte ñu wax ma ne ma nii la man parce que rendre ma ci compte après lañ ma wax ne ma affaire nii la demee nangam naa ma wëlbatiku dellu soit ci pëjëm bi leeral loolu ku mu waral ku bëgg lu leer loolu doy na ci leer. Mm-hmm. la ca des nag soxlootuma cee sax rendre compte kenn lay lay pire ba di dëgg te intérêt sama yàlla xam na ko doy na sëgg. Mm-hmm. lu ci waaye interprète après ça fait mais ñoom ñëpp xam nañ ma ñoom ñëpp mbër yëpp xam na ma ku ci nekk xam na la ma see ok léegi euh, ban relation nga am ak euh, sa mbokk artistes yi ak Coumba Gawlo Seck particulièrement waaw man lu mu comme ni ma koy waxee rek man wax dëgg yàlla li mu ëmbal sama bopp laa xam artistes yëpp jàmm laa leen laa leen yéene amul benn artiste boo xam ne dina dox ci kaw suuf doomu aadama yi si laa wax man kaña yi sax dama leen yéene jàmm waxuma laa doomu aadama parfois dafay am ñoo xam ne li ñuy bëgg mooy dañuy xajamal dañ lay fekk ngay dox ci sa yoon liggéey ko lu yàgg boo leen rawee ci jëf ñu bëgg laa dab ci wax te man Pape Ndiaye coppet li ma li fi ma toll nii doo ay wax moo ma fi indi damaa liggéey loo xam ne suñu borom dafa def may liggéey ba ñafe nit ñi xam ne kii kat ñu xam Pape coppet ci ay liggéeyam te gisuñu ko am ñoo xam ne buñ la bëggee dab làmmiñ lañ lay dabee waaye ñoom ñoo la gën a xam ne duma ma seen morom parce que ñu ci bëri wax baaxul dama bëgg ñi wax ño xamné ne ndjay ciopet bu ne tekk rek baña wax dafa am mu démé bëgguma wax tay dafa am kuma ma yaakaar koku manam da na ko la tooñee na ngay baal muy Serigne Touba ba ko gaay yëpp bi bi dafa baal waye maa leen gën a pànk ñi may tooñ làq naa lo xam ne xam nañ ko waye dama bëgg bu caméra yi timati jakarlo kenn na nga and ak yar ak talibé waye bo ma gisé ci mbéd mi nan wa waaw grand te boole bu ñu la dëppee caméra yi nga mel ni woon di yow te soo ma gisee bëgg maa jox respect boo ñëwee ci sama sama wet dama naan toppal fële parce que intéressé wu ma teesan naa fex waaw noonu la mbir mi demee. ok waaw mais nag artistes yi ñoom ñëpp ku ci nekk dama la ëmbal jàmm parce que loo bëgg rek loo bëgg loo bëggal nit ki nan leer na yaa ciy jiitu man nag ñëpp jàmm laa leen yéene sama xol te loolu yàlla rek a ma ci doy seere amul kenn ku ma ciy déranger amul kenn ku ma ci képp koo gis nag ñoo def sa jikkoo ma neexut te mënoo fekk fekk changé woo comportement mënoo fekk bañ boo ko jotaay du ma ko neexalee kenn la neex nag waxal waaye feeg yaa ngi déranger doo doo toog sama sama jotaay ma ànd ak yow du ma defanteeg yow waaw loolu na leer. Mhm. Euh, léegi Pape lan nga dundul ci sa milieu artistique ba nga xam ne tey jii nii soo ko xalaatee sa xol dina tooy. waaw tooy comme. lu la metti loo dund lu ak ah. say début lay doon wala ay kuubaay ñu lay def. waaw mais xam nga man yoon bi ma bi bi bi ma ne yoon bi ma nekk moo mel noonu te dama ko wax ci yoon ci sànq léegi dama ne ñun keno yaakaar muy Serigne Touba murid yam daan àndal bu njëkk ba te ñoo ñooy suñu référence ñoon dinaa leen dóor saaga leen ñi ñu nangu seeni kër def leen lépp di leen xooñoñal bu njëkk si sëriñ bi leen muñ leen waaye tey ñoom ñëpp muñ mais nag ñuy sant ba nga xam ne yor man maanaam ñooñu def nañ leen référence di roy ci ñoom mais bu fekkoon ne maanaam chaque jour ñu ñu defante rek kon kenn waxatu ko parce que am na ñoo xam ne dañ lay fiire dinañ la sosal ngir fiire la ngir xam maanaam yow li ngay def nii ñu fiir ci loolu loolu maanaam boo ko xamee dafay dafay woyof di xam ne ñii kat nii lañu war a mën a comporter wo ak yow mm-hmm. parce que am am na ñoo xam ne dañ du dañ du gëm yàlla dañ am ñoo xam ne dañ dul gëm yàlla defal nañ ne lépp loo xam ne gis nañ ko ci nit rek ah ay pexe la du noonu àdduna ku nekk suñu borom daf na wàcc jox lu sa cër kenn mun ta fexe maanaam ba cër boobu ci nit ki ndey yaa ciy ñaaw rek li nit ñi war a dépassé mooy ay waxalante yu ñaaw ak ay yenn affaire defe na loolu boo ko defee nit ki da ngay da ngay da ngay dara ci mbiram yàlla noppi na waaw. Euh, dañu seetlu benn phénomène mhm. boo nekkee fecckat jàng sa doom fecc. boo nekkee waykat jàngal sa doom way te éducation am na dem yóbbu xale bi mu dem jàng école. Mhm. yow loolu ban gis-gis nga si am. waaw mais xam nga tey bu fekkee ne yow am na ñoo xam ne bi bàyyee bi ñu bàyyee aar bugguñu seen doom ko am ñoo xam ne préféré nañ seen doom ñëw def lu mel noonu ndax li waral loolu am na ñoo xam ne gis nañ ca aar loo xam ne. ah jaral loolu dara ñoom defoon nañ ne aar bi jaruloo parce que yàlla moo leen may talent ñu ñëw di ko def jàpp ne métier la ñu dem ba ci biir gis loo xam ne maanaam ñoom àdduna jaralu leen ko ñu ne lii démb bu doon démb tey du ma ci du du ma ci dugg ñooñu seen doom bu ci bëgg a dugg dañ koy téye parce que seen doom amour bi lay am ak bëgg ñëw ñu wane ko télé muy woy ak talent bi nekk ci moom mais xamuñu lan moo nekk ci suuf yu ñaaw yuy ne ci suuf yooyu yooyu la bañ ba bu seen doom bëggee dugg dañuy bañ seen doom dugg ci liggéey bu mel noonu yaa ngi dégg parce que am na yoo xam ne ñoom da leen ko dul jaral te dugg nañ ci ba pare réccu na bu démb doon tey duñ ci dugg kon seen doom buy jóg di ci dugg bëgg mu dugg ci. ñeneen ñi nga xam ne ñoom dañ ci dugal seen doom pour wax dëgg yàlla mën nañ ko jàppale ba yooyu yëpp gàllankoor yi yëpp du dal seen doom. orienté ko ba ya nga xam ne liñ bëggoon a def tamit mënuñu ko yeggali seen doom yeggal leen naal woowu kon nag yaakaar naa ne loolu mënuma woon wax côté bële bàyyi bii ñi ci bëgg seen doom dugg ci ak ñi nga xam ne bëgguñu seen doom dugg ci yëpp dafa am ku ci am na cause boo xam ne moo tax nga kii li tax mu bëgg doomam dugg ci ak li tax mu bañ doomam dugg ci. joxe say ambition waaw saxaadatu daara yi nii. jàmme àdduna ak àllaaxira mooy sama ambition lépp ngi ci. jërëjëf Pape Thiapass